ñu waroon koo lancé wan ko nit ñi wala ni am nañ société bu mel noonu bu bees euh, ba ñëpp xam ko ñu yaakaar aussi que société boobu li ñuy def ci Kako euh, dina jur lu mel non ci bir euh, c'est juste ñaan ko yalla loolu mo taxal ñu nek fi tay ñun suñu ambition moy toujours accompagner état bi accompagner les sénégalais si lu ñu def tay xam nañ ni demande bi gëna tar ci sénégalais moy fuñu fu ñu dëkk dëkkuwaay loolu ñun wan bëgg nañ ci bay suñu war am nañu yàlla jagleel nañu ay assiette foncière yoo xam ni vraiment xalaat nañu bu ñu ci liggéeyee sénégalais dinañ ci seen bopp te loolu lañuy ñuy wéyee ak suñu ñaari sociétés nga xam ni moom lañ doon moom ñoom lañ nekkuloon tey